góor koo xam ne is well known in the Gambia mus na wax ne dem naa toolu une stage boo xam ne aw ma sax fu ma nekka mu ne ma ne kaay fanaan suma suma néeg te xam naa ne kooku mu ma doon toppa pour ñu nekka ak yooyu waaye ki ma war a wax kooku noonu war ma wax ma ñëw fanaan ak moom ma ne ko déedéet su ma dee sax ma fanaan ak yow mu ne ma déedéet dama la bëgg a dimbale rek because amulo foo nekk ma ne ko déedéet te he is well known in this country billahi wallahi talaay mu ne ma ñëw fanaan ak moom ma yàlla rek ma ci yàlla yalla rek ñu bare bare bari am tour ci bir deka bi def nañ ma lu bari wallahi yéenay su ko woyee sax dinañ ko tu da buggumaa tudda ay tur buggumaa tudda ay tour because gis nañ ne rek xale bi amut Fatou jañ amut ñàkk but she is influential mën nañu use that am um, opportunity pour ñun ñu am luñ buga ay jigen sa mak kilifa nek ci bir deka bi def nañ ma lu bari te dama leen taxawal buñ démé ba am luñ bugga ma nek ci tolof tolof ma rich awtu ñom ñuy ma daw wallahi tay ñu ma bugga duñ ma mus a jot duñ ma mus sa, jot suñ ma may billion sax duñ ma jot duñ ma jot xana yalla wax ne ah ma dem defal leen dara jégal na leen nak amé luma kenn pal bu bon képp ku ma mus def lu bon man jégal naa la That's yàlla daf may my daf may woon si àdduna balaa mu maa def dara xëj man loolu laa foog woon ma how people are how people are soo féeg te tey ñooñu télé su taalee wala caméra tal seen boor mun nañoo maye millions te man mi nga xam ne dama leen sacrifice am trente su munuñ ma may na leen how evil the human is how wicked the evil the, the human is tay ya fe gis ñee nañ na suma telephone bi tar rek ma ngi facebook live the moment ma ngi facebook live ah mën nañu ekati millions jox mako ko pour ma jël caméra bi rek pour caméra bi di gis lu ñoo def rek way wallahi suñ laaxoo si biir néeg taransu munuñ ma mako mel because dañ ma ñee ci lan awma dañ ma ci lan I am popular maybe dañ ma ñee ci lan nit xam nañ ma waaye munuñ maa dimbale si transu thank you Kodou I will I will keep being strong déedéet tey la neexa neetali damay jàngal ñeneen ñi nga xam ne time bii ñu ngi si ay tolof tolof ñu ngi si tuuxi duuna ñu ngi si loo xam ne munuñ see génn buñ buñ weddi yàlla mukk loolu moo tax may ay muslim bi nag emalewu ma rek ne jullit bi buñ weddi yàlla mukk yàlla dina ñëw comme yàlla nu ma ñëwalee tey su ma defoon naka sudut noonu tey du ma toolu fii tey su ma defoon naka surut noonu yàlla duma ma indi fi aw ma xaalis de waaye alhamdulillah bi ma yàlla mayee nit alhamdulillah bi ma yàlla mayee ma bari ay yaay man musuma am modas loof su ma yaay su ma yaay yarut ma man man juru naa bi am 22 years laa doog a xam suma yaay bu ma jur waaye tey nu ma baree yaay tey nu ma baree yaay even mayuñ ma dara ah alhamdulillah man dama dunda si life déglu leen ma de ma ak expliqué jànxa boobu noonu si office bi ne ko aw fu ma nekk dimbale ma guddi na te aw ma fu ma fanaan ma nekk ak moom just dees rek dees rek mu wàcca benn bés liggéey ndeysaan defuma ko dara defuma dara mu ne ma suma famille ñu ne tey seen famille dinañ ko seetaan mu ngi si dégg man maa ngi si fen mu ne ma ne suma famille mu ne nga dem bugguñ nga toog fi ana sa ay famille yàlla yàlla rek moo xam yàlla rek moo xam doom buy tekki yàlla rek moo mun a yar nitam ndeysaan mu si ndigga maa ngi si fen yal ko yàlla yërëm te xaaree ko arjana mu ne ma suma mbokk yi ñu ne ma bàyyi la nga dem musuma ko wax kenn even office boobu deelu naa fa waaye musuma leen di wax xam nañ ne génn naa foofu waaye musuma leen di wax kii bu mu deeyee dama fay paas si ob bi lañ ko yóbbu dama dem fekki ko foofu ma seede ko seede bu rafet ma seede ko seede bu rafet ma ne leen ne gis ngeen abaaya bu ma sol nii déedéet dama génni abaaya bi suma waaw ma ne leen gis ngeen abaaya bu ma sol nii moo ma ko jox fekk abaya bi am na keneen ku ko ko abaloon waaye daf ko mujjee yóbbu kër mu jël abaya bi mujjee mu nekk si moom waaye ma gom ne alali jaambur nit ku dee ma taraay ba ma gis ku ko ku ko moomoon because mus na maa wax ne man day diw moo ma abaloon ma julli ma taraay ba gisaat kooku ma ne ko de ah yow day ki nga abaloon abaya gaañu na abaya bi day xam naa ne may nga ko ko ma ric awtu kooku xam naa kooku moo taxin àdduna dañ leen def nanka àdduna man bilee mu ma ko sax ëllëg ma ne ko amul problème baalal ma rek ma fanaan tey ëllëg ma ne ko ëllëg dinaa génna maa ngi jaaxle xaw ma lu maa def xaw ma fen fu ma dem xaw benn mbooka mbooka boo kool mu ne la déedéet soo leen remember yee ti ma ti ma la waatoo mus na maa xasee loolu waaye musuma ko seet tontu nekkul ne du dëgg de ti ma waatoo ki ko wax loolu dëgg ko wax dañ ko ko wax te ku ko wax dëgg la ko wax munum aw ma fen fu ma nekk fu ma dem ñu daaxama man Fatou Jagne fu ma dem ñu daaxama waaye ma gëm yàlla rek ma gëm yàlla because nit yi ñeneen ñi ñu ma jàpp ku dof ñeneen ñu ñu ngi ne kii wérut waaye bëgguma jël loolu wane ko xam naa lu ma doxal ne maa ngi si yooni yàlla xam naa li ma nekk ne yàlla moo ma teg si lii kon nag damaa dem ba jeex ma moy yàlla mu subaa mooy yàlla comme like dem di yaaxa suma boppa dem di tëddoo ak ay góor man man dinaa leen ko wax tey ngeen dégg ko I am a virgin góor musut maa góor musut maa tëddoo man xale bu ndaw laa ba léegi maa ngi amee suma virginité ba léegi barke alquraanul karim ak suma baaxel dama ko war rek pour ngeen janga mboka dahama tay mboka yi ñoma bëgg for one na ma tey ñu balal ma rek waye fokk ma wax li pour ñeneen ñu janga si aduna mo mel nonu merew ma ben mbokka nag bàyyu ma benn mbokka naa ñaanal sa yu ma julee ñaanal len ñepp nak mboka ak non ku nekkul mboka waye dama bëgg ngeen janga janxa bi mu génnee ma yal na ko yàlla yërëm tey xaare ko arjana mu ne mbookaami ñu ne ko man ana suma ay mbooka te dëgg la ñu laaj ko loolu su fekkee dañ ko ko laaj naa génna because xale warut a yaaxu bay dem di dëkka moom keena waaye fekk xamuñ ku ñoo waxal fekk ku ñoo waxal xamuñ ko xale bi jigéen bi sax xam na ne man ban façon nit laa waaye xëy na moom tamit Ken xamul daal duma muna gañu na fu mu nekk duma muna ñaawal affaire bi neysan ma ma ma dem ma dem lijjante ma kol xale bu jigen bi nga xamne jeelalon nañ len Libanon indi len ma ko diw mu ne man na ma ko he metti na ma ko ma fu ma nekkate ngi ni awma ma fu mom tam mu tray tray tray tray tray ba keena ba ba ma boolee keena daal du ma mun a ñëw deep into da that that thing lu happen comme waaye daraam la woon daal comme dañ nekkoon waaye góor gu baax la daal you know xam naa ko dafa bokka dañ xaw a relate ak suma suma papa ma dem waaye xamutoon loolu de góor bi xamutoon loolu ma dem guddi boobu noonu góor bi tam óoluwul because xamul ban façon nit laa yaa ngi indi nit jigéen guddi xamuloo jigéen bi kan la moom tam mu ngi luwaas mu ne ok mu jàpp si yàlla rek kooku duma ko musa fàtte si àdduna billahi du may communiquer ak moom nag fu mu nekk waaye duma ko musa fàtte saa yu ma seetusee mu xool waaye na xam ne man xanaa ma ñàkk de waaye ma am lu ma soxla duma ko musa fàtte billahi te nekkul julit nekkul julit kooku nekkul julit fi ma nekka nii man ak christian jige fi negbi, jigéen fii néeg bi waaye ñoo maandu ñoo maandu lo len mayut bugguñ ko lo len duñ ko jël hmm. alhamdulillah rabbil alamin sante ko yàlla luma musa dal si aduna hmm. gor bobu ma dëkkaa ay mons wallahi musut maa def dara bi mat ñëwee ma introduce suma boppa he mu ne ma yow sax papa sa papa suma xarit la woon man dama daal liggéey ak moom ay mbokka lañ mu ne ma dama daal liggéey ak moom sa papa nii sa papa nii sa papa rafet xol sa papa moo mel nii he yow sa papa moo bugga nit maay wu explainal ndeysaan suma rongo ñu ñu rot mu rot indi sens man xawma suma papa suma papa yarut ma papi jaambur moo ma yar papi jaambur boobu nag du jaambur si man papi jaambur boobu teg ma fu mu tegu doomam yi yal na ko yàlla yërëm te xaare ko arjana bu moo gaañu maa ngi doon xalel less than fifteen years or ten years kooku dama koo jooy ba tey because kooku mu génnam si man ba léegi dama ko dee fiil papi jaambur waaye du jaambur si man ak yaayi jaambur waaye du jàmbur si man mooy suma toomaa moo ma yàgg moo tax ba dee wane képp ku bugg a xam kuy Fatou Jagne dem leen ngeen laajte suma nooni su fekkee dinañ wax seen diggante yàlla maa gën a naxari deret waaye kenn ginut maa baax dama bokk si ñu gën a rafet xol si di àdduna bi fii si àdduna laa la wax dama bokk si ñu gën a rafet xol yàllaa ma yar yàllaa ma merloo lu ma mel maa ngi ko koo sante te di ko ko gërëmee lu ndaw rek laa leen di wax ni si suma story lu bari waxaguma leen ko pour rek ñeneen ni ñu jàng si àdduna am na ñu dunda lu raw lu ma dunda mais bi waaye lépp loo leen gis maa koo def on social media xam leen ne dama koo def pour jàngale nit ki danga nga war a déggu nga nekk ku dégg nekk waxkati dégga dëgg la na kenn du wax ne musuloo wax lu amut si àdduna kenn du wax ne musuloo fen wala musuloo def na naka sudut noonu loolu amut soo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ko yàlla mayoon waaye dañ war di bàyyi xel suñ xel si àdduna tey ki ma mus a génnee yàlla yóbbu na ko mu ne suma ay mbokk ñu ne nga dem bu ma la fi bàyyi dañ wax ne sabul fi fanaan right now te mu ngi wàcca liggéey imaginal nga wàcca liggéey ay boori six man su ma génnee fan laay dem ma ne ko ma rek ba suba suba rek dinaa génna hee am keneen tam koo wax ne mu ne daf ma yi daf ma jàppa doom kooku jigéen la mu ngi on social media te nekkul Gambia mu ngi America kooku tam def ma leneen lu ma gën a naxari si aduna. waaye kooku duma wax waxam dama koo bàyyi te yàlla rek tax moo taxit ñu bari with all this lot of promises man I don't put things in my mind ne kii promise na ma lii na ma defal lii kii nii déedéet ba ma ko gisal suma boppa because yàlla daf ma def ma jànga si aduna? ñeneen ñi dañ laa wax ba pare nga am gom-gom bii ñu gom loola lu kenn xamut def loola ay stof moo taxit man kenn du ma dugal ci lu ma bëggut a dugal ameewuloo ko aleel man dëgga dama la koo wax billaahi ah man man su nekkoon ne man dama bëgg a nekk koo xam ne naka sudut loolu dama support président Adama Barrow ba pare di fen am looloo nag si moom te mun naa ko te xam naa ne dinaa ko am waaye duma ko def su fekkee ne président bi daf maa bëgga accept ma si nu ma mel support ko si dëgga ak dëggu daf ko def way su fekke ne ñu nekk soraaw nam dañ dañ won man to be fake to him pour may ko moo popularity may ko mo nit ci ko fen eh dede du fa jagn bi because ñoom binduñ ma ñooñu soraaw ko binduñ ma suma destiny wuñ ko ak ah, xay ya dee gis ñene ñi sax from yeneen order parties dila dila dila dila dila dila di la lifin ay halis bu bari only rek pour nga dis president bi olli rek pour nga wax na ko sudut noonu wala nga def na ko sudut noonu du man dama leen ko dee wax képp ku ma bribe jox ma xaalis dinaa ko jël du ma mus a def loo bugga su fekkee ne nekkul ci yoon wala nekkul lu baax moo taxit baay leen ma rek ku ma laal dangaa laal laalaa kecca di nga dugal sa boppa bàyyi leen ma rek bàyyi leen ma affaire bi yàlla la bàyyi leen ma baay leen ma bàyyi leen ma <laughs> man bàyyi leen ma